Niang. capitaine dama am contentement rek xam nga parce que lii dafa neex quoi parce que dañoo liggéey lii ba sonn xam nga te tamit surtout man bu ma dalee football ba léegi lii mooy sama premier trophée xam nga dama koy sante suñu borom nag xam ne yàlla chaque jour rek day def lu gën xam nga. mais nag dañ kaa liggéey xam nga samay coéquipiers yi chaque jour dañuy entraîné lu metti di liggéey ngir match bi parce que ñëpp dañ ne woon équipe bi moo ngi dàq football moo ñu mën. dañoo liggéey nekk mag suñu ay dirigeant ñu ngi teg ci yoon dañuy teg entraînement lu métti di remercier coach yi aar yi lu ne def ñu koy daj loolu lu ne waaw ñu moom moo ñu jàngal football ñun ak amuñu fayam di ko sant waaw di ko sant di ko gërëm rek amuñu fayam dañoo am entraîneur boo xamante ne entraîneur bu am yërmande su ñun entraîneur bu ñu jàppale te ñun moo ñu tette moo ñu tette ba ñuy ndaw xam nga moo ñu tette parce que ñun moo ñu jàppale ñun ñii ñëpp presque xaaj bi yëpp suñ nee su nekkee onze jours dix jours yëpp wala neuf yëpp ci centre lañ ne. victoire bi nii rek la mënoon demee ndax du kenn moo koy décider sëriñ mayewu ko gàllaaj mayewu ko téere mayewu ko yàlla moo koy maye. yàlla nag moo dogaloon espoir am na équipe am nañu équipe am nañ dirigeant am nañu am nañu ñaankat am nañu yàlla moo dogaloon coupe bii ren du génn sama loxo su ko dogaloon du dara maa ngi leen di encouragé waa espoir di leen wax ñu koy farwaat ba déwén. espoir mënuñu ko démérité wul tamit parce que def na match bu rëy. ñu nit ah démérité wuñu moo dañu ko moo tax ñu géyee waaw moo tax yàlla yàlla bàyyil lii quoi mais nag di sant rek zone bi nag maa ngi leen di gërëm di gërëm président zone bi di gërëm vice président bi di gërëm président ODECA président ONCAV di gërëm les membres de comité directeur zone bi yëpp maa ngi leen di sant di gërëm ASC yëpp. ñu joxe ñaari récompense yi.